di kontaan di la ziar mhm. di nuyu mbokk internet ak yëpp mhm. vraiment am contentement ak fierté Babacar parce que tay da nga tok ak sama idol? sa idole muy Zal Zal ba ñuy sama idole la won sama référence la won dama da roy ci mom ba paré nak taxawon ne dara du ko jege mhm. ñu def bouclier man tafagay de Djily Gribordo, Bordeaux ba daf ñu jaraloon lu nekk Zal daf ñu jaraloon lu nekk ñun suñu bu ñuy wax ñun face bu ñu amee rapidité d'exécution réflexe bu gaaw ñun mbër nga daan waaw mbëru phase yi dañoo gaaw mel ni mbalax lépp ci Zal lañ ko royee hmm? ndax rapidité am Zal xeetu melax bi mu doonoon ñun dañ doon fexe toujours mën a di njëkkante waaw pour ci action ni njëkk def action def vite fait mu jeex ñu jóge fa mhm. parce que Zal loolu lañ ko xamee woon Zal bëreem fu mu lay tatafoo fu muy bëree fu muy bàyyee fu mu lay bàyyee nga foog ni bàyyi na mu ñëwaat mhm. yooyu yëpp dañ ko imiter tellement bu ñu dem ba mu nekk ñun mhm. oh. boo xoolee communication dañ ko imiter ci tafaaga yi ay gestuelle communication gestuelle lañ jël ci tafaaga yi mais bëree ak rapidité ak sañ-sañ dañ ko jëlee ci Zal donc mu nekk koo xam ne tamit man dama koy ñaanal yàlla chaque jour mm-hmm. parce que ñun tey mm-hmm. xëy na tey bu ñu defee dara ci làmb wala ñu am dara ci làmb mm-hmm. dañu war a siggi xool ko gërëm ko moom Zal waaw parce que tamit sonn na si ñun no Zal sonn na si ñun parce que tey koo xam ne tey ba muy nekk champion dégg daal yi mhm. daan yëgi ni drapeau chef de l'état mhm. ñibbi si Ndakaaru mhm. tey toll woon foo xam ne zaal bunt bu mu fëggoon mu ubbi ñëpp soxla ko man Tafa Gueye 2 Gris Bordeaux jiili la jël f uuf ci wetam carte bancaire am sa xolal zaal billaay am na yoo xam ne sax bëgguma si àgg zaal dafa doon daf ñu doon yónni nii yónni Tafa Gueye ñu war dem war a retirer cent mille cinquante cent mille retirer ay cent cinquante mille zaal mosu mosu koo xam mosu koo lijjanti. ndeysaan da doon miine xaalis ci biir këram jël avance jël def li muy def jël miine maag Tafa Gueye de guddi ñu toog nii xool ñu. dafa nii ñu dem xool miin bi rocc benn dix mille. <laughs> billaahi lépp lépp ci yaatoom la. macha allah équipement am. Mhm. yére dàll. Mhm. tey ñun bu njëkkee sol dàll bu rafet wala yére bu rafet ñëw esaat. Mhm. c'est grâce à lui. tey bu ñu demee ba ko doon defal suñuy rakk dañ ko mm-hmm. gisoon si suñuy mag parce que waxal nañ la ko léegi yow ah. waaw dañ ko gisoon si suñuy mag da doon sol ay blouson lasecri mm-hmm. blouson yoo xam ne sawaay taay si jamono yooyu taay blouson naa la wax dara blouson yombul woon yombul woon dëgg la bu ko solee summi fa la koy gëjee gis daal la bu ko daal <laughs> bu solee daal la summi fa la koy gëjee gis <laughs> mais mu yaatal ko si ñun mm-hmm. moo tax tamit ñun tamit bañ demee ba ñoom Lagrosse ñëw Forza gars yi yëpp. ñun tamit ñu am xolu uuf mm, leen. bien parce que ñun dañ ñoo tette uuf ñu. wan leen yoon waaw wan ñu yoon bi ñun mm. tamit ñu tette leen. Mm-hmm. uuf leen ñu nekk xale yi ko jar muy moom général Lagrosse. Baara Ndiaye. tu vois ñoom dañoo ñëw indi seen touche bopp. ba pare ñëw wan leen ñun grand yi ñun ñoo leen gën a bëgg. muy Lagrose. muy Baara Ndiaye ba léegi nii. boo booy bu ma dajeeg ñoom danga nga naan non non dara changé wul. malgré nekkatuma fas face bu ma ñëwee stade dañuy tàngal sama yaram am na combat Lagrose. mënuma ko muñ damaa tëb barrière yi ñëw tuus. ñëw ju tuus mi bilaay ah? ñëw ju bilaay combat ma Coent. Coent la waaw waaw mënu dama toog mënuma ko muñ. ma tëb barrière yi ñëw tuus tuus ba mu saf. nga ñëw mu xalal la. waay billaay walaay parce que xam nga ne ma grand. non dama fier non wax ma wax bu doy yaram. Mm. moom la parce que loolu lañ séq ay mm. liens yu naturel. Mm. yu dëggu yu sincère la ñu mës a am. wallaahi azim. wallaahi azim mësuñu am ay xaj ak seen sunu biir. dëgg la comme ni mu ko waxee bu làmb musaa jot. Mm-hmm. damay dajale boo yëpp ñu ñëw sama kër. Mm-hmm. ma génnee dàll yi génne lépp génnee lépp génnee lépp ñëpp solo. bu ñu demee stade ànd ñu heure timing bi man leen heure bii. Hmm. bu jotee rek nañu siif tous. yëngal estate bi mu doonoon loo xam ne. Hmm. marque Fass la woon. Hmm. loolu yëpp dañ ko fekk ci ñoom Zal. dafa Gueye ñu tett ñu ci. Zal nag wax dëgg yàlla làmb moo ko amel njukkal. làmb làmb moo ko ameel njukkal. reconnaissance. dañ ko war a reconnaître waa làmb waaw reconnaissance daal dañu war a làmb dañu war a am ci moom reconnaissance. Mm. waa làmb parce que defal na làmb defal na Sénégal. tey ñu mel ni Zal ñu mel ni ñun ñu mel ni ñii ñëw. Mm-hmm. heure bu ñu demee ba bàyyi làmb làmb daf leen war a jëriñ. Mm-hmm. Mm-hmm. làmb daf leen war a jëriñ nag du ci ay jox xaalis. du ci ay leneen. mais nit ki reconnaissance. ñu reconnaître ki mu doon. à sa juste valeur. dafa am solo. Mm. tey ñun kii référence la si ñun. te ñun tey foo tourné ñun référence lañ ci dëkk bi. Mm. mais tey kii référence la si ñun. kon kii am na lu mu def si ñun. te ñun am na ñu ñu def si ñeneen. Mm. kon loolu warul réer. déedéet warul réer. Babacar foofu laay. <laughs> macha allah <laughs> macha allah am na solo.